Eh, tey nit bu xamoon li ci war nit bu xamoon li ci war doomu aadama du woon du war mukk moroomu jullitam ndax firi firikatu alxuraan yi wax nañ ci budul benn du ñaari waaye Sénégal la dara safut Sénégal la dara bagajul yow nga nekk ci palaasu liggéeyukaay palaasu liggéeyukaay yi mi ngi toj nga nekk ci palaasu liggéeyukaay fexe ba jël nit ba dugal ko fa nit ko pare def la noon di la xeex di la xeex ba ni la fa déjjë jële yow ka nga fa jële ndax mën ngaa fayeeku salaire sa salaire rek ngay yem nga xañ ko moom ma la fa jële woon nga def ko noon xëy boot sa saak bi di wëtti sëriñ si ba jële ko fa tànk jële ko fa doo fa am jàmm yow nit fekk la situation yu metti lekkoo naanoo say nelaw doyut nit xar tànk tubayam di la xettale di la xettale ba nga ne jotu taxaw sab ko lu wër la léegi lekk nga ba suur yaa ngi sol mbubb ak sañse daal koy jël def ko noonu bëgg a toog koo teg bat mi ngi fi am pa gaay gis nga fii loo fi wax bu kenn mukk amut neel teguma ci bat yéen a ma gën a xam ne lii may wax am na du ma wax lu ma xamul barke Serigne Touba Mbacke li ci dëkk bii bu changé wu dem ba ci waaye dencante yi li nga xamante ni jëkkër day day fekk jabar ci situation yi méttee méttee mét takk ko jabar ja pare ni ko fa ñukku nu yàq bu naqari dem ca leneen mi fi. nga fekk jigéen ju fekk tamit góor ci situation yi métti ànd ak moom ñépp ni déet mun a waaw di toltolaan ak moom bëgg góor ko taxaw ñu ko fa ñu ko bedd ko fa dem yoonam kon waru yi fépp la nekk dem ba ci waaye dencante yi nit ki dem ba amul fu mu dëkk ngay xeex ba wutal ko néegu luyaas wala nga amaan sax nga joxe avance wala nga fat ko sa biir kër di ko dundal nga pare mu def la noonu xeexante bi ci digg dëkk bii warantee ci digg dëkk bi fekki bagage ci jàmbur yow xor yow gontoo goroo yettoo jël ca bagage ya lebal lebal lebal ba sam neex sa fiyaat nga pare sol saw daal wër ci dëkk bi yàqub daram bu la fayee koo ngu mer di wër di yàqub daram te fekk yow yaa tooñ yaa yenu loo àttanul ah am na ñoo xamante ni gërëm nit la ñu lu bu baax ñu waxal ko nit du seen jikko xalaatuñu ko newut ci ñoom waaye nag ku gërëmul doomu aadama doo gërëm yàlla nan leen rafetal xol ni ñu nekk teguñu ko fenn gis nga feebar bii fi nekk nii yàlla na ko fi yàlla jële waaye yàllaa ñu woon boppam rek war nañ cee jaara nag jàngaate ci lu baax a baax te dafa suñu jikko yi gis nga nit melokaan gu ne mën nga koo mel waaye boo ne tey laay dee fexeel ba dee tey boo mattee dara na nga ko dagg ci lu baax waaye loo wax léegi-léegi génn ci léegi-léegi dem ba léegi ñëpp nuróole hôtesse boobu def koy hôtesse jikko jooju lépp def koy hôtesse ñu naan la koo defal lu baax mu fay la lu bon dem ba ñëpp di dund loolu ba nuróole jikko jooju te moo ne ci dëkk bi kala dàq def léegi lu baax moo la gën a mën a fayeeku lu bon di nga dem nag ba def lu baax nga dul defati wala xol yee def lu baax mooy mujj lakk ñuul kukuroto ba nga def lu baax kon nan leen defaruwaat nan leen defaruwaat lii ak coxoor rek di jur ndax nit ñi am alal di dimbaliwaate dem ba leneen fekk la ca nga da daal di réccu dina dem nag bu juróol ak coxoor ndax di xettali mu pare bëggatulaa gis di nga dem ba boo xalaatee fa nga jaaroon ak nit boo ëllëgee boo jekkee doo bëgg a dimbali kenn nan leen defaraat suñu jikko yi ni ñu nekk teguñu ko fenn te koo ci ndoo jullit mu xar suuf si dugg ci